nee naa lees way nee naa lees waxul bisa biigi faalo ndigal faal jambaari lislaam jambaari xel koom nee naa lees way nee na lees waxul jaarama digal bàyyi góor jarama yooy njabaar mi bal jàmbaarooy nii la góor mel mbégte bu yaatoo yaatu la ñuy am ami internetu Dakar Net asalaamaaleykum yéen a ngi ci seen biir émission lees waxul lees waxul nag concept bu bees la maanaam dafay wax lépp loo xamante nii rek dafa soxal société bi muy actualité politique fait divers people lépp loo xamante ni rek société bi daf ciy dox dañ ci wax bu baax a baax waaye nag wetuma ci plateau bi benn yoon ndax maa ngi ciy ànd ak sama compagnon sama xarit ah, nuyu naa la. maa ngi lay nuyu soxna Diarra. Mhm. Eh, cant ak ngërëm dalay daal di ñeel bu baax ba mhm. may wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Mhm. gannaaw ba nu sante yàlla julli ci yonentam bu tedd bi maa ngi leen di nuyu. di leen bëggee di leen ziar te di leen ñaanal jàmm te kay sàkku ci yéen. Mm-hmm. di ñaan yàlla mi am jàmm te ku mu may jàmm ku ne nga am jàmm yal nañu yàlla sàmm. yàlla aar ñu yàlla yéer ñu yàlla muccal ñu génn àdduna yal nañu xippee arjanay firdawsi yal nañu bu ñu fa defate lu ñu fay duggee. Mm-hmm. ñi tëdd ci loolu hôpital yàlla fëgg seen i bopp bañ dem rejoindre seen njaboot soxna jaara maa ngi lay bëggee di la ziar te di la ñaanal jàmm baax baax sama xarit bi Sow Dieng sa blanc baax na de. ci yow lay xool rek <laughs> <laughs> ma ne ko ci yow lay xool. comme ni ma ko waxee nag émission bu bees tàq les waxul. Mm. Euh, tey nag ñu fas yéene waxtaan ci fànn yu bari. Euh, ñu am fi ay kaa yu nga xamante ni fas yéene nañ ko traité euh, mm. dañ daal di commencer rek ci benn kaa bi nga xamante ni am na fële ca xombal. xombal xam nga man mooy sama dëkk fa laa <laughs> donc leen wax rek daf may xori. Ah benn. politicien mu dëkk Thiès moom nag euh, jamono yi ñu génn semaine passée rek moo fa takk benn ndaw su am 18 ans xale bu ndaw mu takk ko mën nañoo dem jëli élément bi après ñëwaat ci biir plateau bi. waaw na nekk mën nañoo jëli élément bi ñëw. d'accord mais da nga wax euh, lu am solo mm-hmm. muy xale bu ñu mayee bu am 18 ans. Mm-hmm. pour man majeur gun sax ba ñu war koo mën a maye ndax 18 ans dafa teel. Mm-hmm. mais léegi xale yi boo leen mayee wun daanaka ñu maye seen bopp. te comme politicien moo ko takk xam naa tamit Sénégal alal ji la ñu yaakaar. ndax Sénégal boo yoree rek mm, foo joxoon ñu dagg mhm. boo yoree foo timbaxee rek ñu rembaxal la ko mhm. bon dañu jëli élément bi ñëw ñu xool nu ñuy gën a yaatalee rek ñu waxtaane ko lii doy doy d'accord jot naa jokkoo ak ki nga xamante ne mooy sœur victime bi euh, victime bi Aïcha la tudd jot naa jokkoo ak ki nga xamante ne mooy mami di magam nañ dem jëli élément bi ñu wàcc bi plateau bi nee naa lees way lees waxu voilà defe naa ñoo ko gisandoo yéen ñi nga xamante ni yéen ngi doon nekk di déglu boobule élément mu nekk lu doy waar comme ni mu ko waxee rek am naa ni sax déggoo bi amoon na ay tuuti jafe-jafe ba tax na rek comme ñu gën leen koo tënkalaat ki nga xamante ni mooy Aïcha moom nag moom la benn waay waa ji nag mi ngi tudd. turam bi mi ngi mi ngi tudd Souleymane Ciss nekk politicien dëkk euh, dëkk fële ci cees mhm. moom nag dafa gisante ak Aïcha fële ci xombal daal di koy takk ñaan ko soxna léegi bi mu ko takkee nag euh, bi mu ko yóbbu fi nga xamante ni mooy seen lune de bi mu tëddee ak moom ba pare def na ko fase naa la la waral mu fase ko nag leen rek la ko ca tegal na ko amuloo ndaw ba mu ne ko waxee amuloo ndaw comme ni ñu ko déggee ci élément bi euh, ba pare yóbbuwu ko këram daf ko jé daf ko bàyyi ci hôtel bi abandonné ko comme benn xaaj boo xamante ni mooy loolu nañ ma baal ci kàddu bi ba noppi yóbbu li gën a doy waax ci mbir mi euh, mooy dara bi nga xamante ni ñoom ñaar foofu lañ doon sekkee daf ko yóbbu ba tey joxu ko ki nga xamante ni mooy ndaw si joxu ko aussi ki nga xamante ni mooy famille ndaw si mu nekk mbir mu doy waar ab san ab euh, laaj nag sampo lan moo waral mu yóbbu li nga xamante ni mooy euh, dara boobule lan moo tax ba mu noppee rek demu ci ki nga xamante ni mooy famille ndaw si wax leen li nga xamante ni moo ko dakkari xam nga euh, parfois. Mhm. nit ñi dañuy nax seen bopp. ndax ministre la ou bien mu am nekk nit ku am tour wala mu nekk nit ku am mhm. xaalis. Mhm. te jigéen ñi dañoo bëgg ko am tour wala ku yor teraanga. man bu ma la takkee si farata ak sunna. su may lem linde meel samay mbokk war nañoo xam man fi ma dem. surtout xale boo xam ne dix-huit ans la am. bon tey ci mbokki xale bu jigéen bi ñoom tamit kaa lañu ñoom ay complot lañ man su ma doon dam naa mbokki xale bu jigéen ay ay complot lañ. ndax xam la moo ay complot lañ yow doo jël sa doom. mayee ko tey suba muy dem li ndemee la xamoo fu mu dem li jënti ko kenn amul ay coordonnées kenn xamul fu mu nekk mm-hmm. ñu xëy xëy na fase nañ ko mm-hmm. bon ana complot am na foofu mm-hmm. te tey jii xew bu amee buñ daan maye si kër lañ daan sekki bàjjen fu ñu daan tëddee kañ bàjjen da sa daan topp mooy jël mooy jël darab ba dara ba ngeen daan sikki ndax ndaw ba cay tuuru bàjjen da koo soxla ay waajur dañ koo soxla ngeen tiitaroo seen doom mhm. sagoo seen doom ne ah man kat sama doom am nag ndaw wala ñoom wóoluñu woon seen doom mhm. ñaar yooyu man am na ma si wóoluñu woon seen doom ndax am na ndaw wala ñu jaay xale bu jigéen euh, euh, liy gën a doy wax ci mbir mi euh, waa ji bu mu waxee ki nga xamante ni mooy xale bu jigéen bi que ni amul ndaw mbokki xale bu jigéen ba affaire bi daf leen jaaxal ak ni mu ko abandonné fi nga xamante ni mooy si hôtel bi dem yoonam euh, ba ñu yóbbu ko hôpital ak fase bi ba mu amee ba pare dañoo jël seen doom ñoom it yóbbu hôpital ndax bëgg xam réellement ndax li waa ji wax dëgg la waaye nag ba ñu àggee ci hôpital lee dañ leen xamal que ni ki nga xamante ni mooy xale bi euh, ba mu arrêté bi ñu arrêté euh, hymen bi ci dafay correspond ak bi nga xamante ni mooy jëkkër ji jël na ko mm-hmm. mu mel nii waa ji li mu doon wax amul gis nit ñi di laaj nag di laam-laamee lan moo waral mu daal di jël dara boobu nga xamante ni moom la sekk woon ak ndaw si ba pare yóbbu ko nunguwu leen koo jox mais dara boobu li ko waral mooy dara bi gàllaaj la ndaw ku jigéen dafa dafa cher mhm. jigéen ñoo xamul seen bopp. en plus un politicien la. jigéen ñi. Mhm. ñoo xamul ñooy ñooy kan. Mhm. waaye ndaw jigéen boo xam ne takkoo ko jar na ay milliards. lan moo tax ñu ne góor gu dévierge jigéen toj nga juróom-ñaari jàkk xam nga jàkk du caaxaan. mais loolu est-ce que est-ce que est-ce que xale bu jigéen bi moom moo def faute bi ndax. ay parents ñoo ko jaay. ba tey mën na bañ a nekk ay parents parce que nit ku ñëw ci sa kër ñaan la sa doom. mais damay xam kay kan. yow da ngay ñëw a la mën a la may ma sa doom da ngay yëkki jox ma ah, même ni mu waxee parce que man ci information yi ma jot a dégg nee euh, sëy bi gaaw na gaaw boo xamante ni presque waa daf ko taxañ taxañee dina ko taxañ taxañ ndax Sénégal li mu expliqué mooy que ni moom euh, mariage bi xamul waa ji yow sa rakk xamoo ki ko takk ku mu doon euh, xamoo mariage bi nee na mariage bi la yëg rek mu ñëw ba mu ñëwee après li ci des yëpp comprendre dafa mel ni ñoom seen xel sax waa ji daf ko lëndëmal lëndëmal benn seen xel Sénégal nañ bàyyi diw dafa lëndëm lëndëmal suñu xel fii kenn lëndëmalu fi xel kenn xaalis moo jiital sénégalais mhm. xaalis moo jiital jigéen ñi mhm. te ji xale bu jigéen boo gis jaay na ngorom léegi ndax lan xaalis tey ji ndaw na mu meloon mhm. bu njëkk da nga daan dégg ñu tëddee nit ñu xëy di def laabaan toog une semaine di ruyal xale bu jigéen bi xaf soom bi la jox muy lekk ak a mbaxal léegi dañ lay tëddee léegi sabar gi tey yaa koy toj a ah, jamono moo toll foo xam ne tey la amoon amatul te léegi nit ñi tey suñu yónnee seen doom rek dama ko bëgg teg un million stable ci bu subaa suba suba suba ñu taxaw mariage bi tey tey tey tey suba suba ñu ñu musée yi ndax ñun bis loolu la ñu gëm time is money la ñuy def ba dañuy jaay suñu ay doom ñaata nit ngay gis si si dëkk bi fii ñoo xam ne dalay leer na kii amagul droit jël appartement pourtant mu ngi jël appartement yaay ma nga fongali wala yaay ma nga àllu kaañ yaay ma ngi feneen dañ naan seen yaay maa ta maa ngi liggéey ci Dakar ñëw jël seen appartement di fi def lu te seen i parents yi ngi dund fii ci réew mi di nga leen gis. Mhm. ñun ñoo amatul éducation yar xale yi te xale dañ koy tàggat tey ji 18 ans noo si may sa doom doo ko bàyyi mu am expérience jàng tuuti. Mhm. am niveau d'étude tuuti. mais 18 ans nga taxañ sa doom maye ko politiciens yi am na si droit ndax campagne gaa ngi ñëw ku nekk dafa bëgg a jël réew mi. Mhm. damay jël ndaw mi def li ma ci def si drap dem liggéeyi. gàllaaj gu doy waar ak noonu la gu baax gàllaaj ju ko mën a faj gu ko mel ne mu nga xamante ne lu euh, luñ ci lu lu mu lëmbaajee xelu nit yi mooy euh, politicien boobu wala nit kooku le comme moom homme politique la comme ni ko ñëpp xamee loolu nga xamante ni dafa ñëwoon uniquement pour takk xale bi rek pour daal di jël loolu nga xamante ni mooy ndawam ah. euh, daf ci gàllaajam bi nga xamante ni moom la soxla mu nekk mbir moo xamante ni nag duñ ne guleet Mhm. Euh, dégg nañ fi ay nañ. ay kuréel yoo xamante ni dañuy tëddee ana poone yi ñu daan campagne yaa du ñëw na ñu commencé def ay li nga xamante ne mooy yu ñaaw yooyu noonu. mais campagne yi mu ngi ñëw ku nekk xam na ne bientôt euh, ñi ñu commencé voter mhm. maire yi jot na heure bi jot na fi mu toll nii c'est le moment au jamais kenn ku si nekk day ñaan yàlla nekk ci kaw si doon kaasi doon mhm. kaasi dafa neex. nguur boo ci xasee ba toog doo ñaan yàlla jóg. nañ di ñaan yàlla Sénégal jàmm rek di fi am. te ñu bàyyi xale yu jigéen yi ñuy pasar pasare 18 ans mënagul sëy 18 ans fu muy toggee mbaxalum saalum 18 ans fu muy toggee añ 18 ans majeur na nag quand même 18 ans mënagul raxas ndab 18 eh, ans majeur na mais majeur na si kayitu tubaab mais majeurul suñu Sénégal ndax da nga fi gis ko xam ne 18 ans fii day foofu hmm. léegi-léegi mais gis fi da nga gis fi 18 ans boo xam comme sancago comme Santiago Bernabéu d'accord suñu borom moo bindee noonu Sénégal bon nañ jox jigéen ñi seen orma jox jigéen ñi seen cër jigéen dafa am valeur. Mhm. jigéen suñu borom yàlla da koo cëral yala da ko am ndax dana dana yaay ba muy juróom-ñaari yoon na papa benn yoon. Mhm. te nee nañu ndawum jigéen ku ko dindi si njaaloo maanaam mooy daanaka baakaar bi toll na nga toj ci juróom-ñaari jàkk. bon mhm. nañ ormal jigéen ñi nañ fonk jigéen ñi nañ respecté jigéen ñi nañ taxawu jigéen ñi Sénégal nag am na jigéen ñu fi gëm seen am na jigéen ñu am valeur si Sénégal mais valeur bi fi amoon day mel ni day wàññeeku. d' accord ñu gis que ni xale bi comme ni ñu ko waxee euh, nee nga yow majeur agul ci fi nga xamante ni mooy suñu Sénégal man na la man ma ne la majeur na parce que am na 18 ans selon toi yow xale boobule euh, ban jafe-jafe la ko mbir mi mën a euh, mën a mën a indil. mais xam nga ban jafe-jafe la ko mën a indil de un day perturbé. Mm-hmm. ndax de un xes na xam góor. Mm-hmm. ndaw mi dañ na gisatuñu darab bi darab bi kii ne kii ñu ne ki ngeen wax ne ministre la yóbbaale homme politique bi ngeen wax homme politique bi jël na darab bi yóbbaale ko xale yi mu ciy def moom moo ko xam mhm. mais de un rek xale bi fi mu toll nii dina perturber fa même tayle nañ ko mën na cee jële lu ne bu ci jëlee ëmb fu mu koy waxee mën na cee jaare sax bañ góor mën na see jaaree bañ góor mhm. comme mën na see jaare aussi bëgg góor ba faw ndax affaire bi moom moo ko xesee ba ñam neex na dootoo ko bàyyeeti man nga see jaare bëgg góor ba faw di wër góor foo toll ndax vitamine C la moom hmm. mos dool la tudd xanaa nga bañ a mos boo mosul moom kumpala la mais boo ko xesee ba sunu borom dimbal nga gut non dootoo ko defati di nga xam ne l'histoire retiendra comme ni ñu ko waxee rek kaa euh, baa ngi noonu mu nekk mbir mu ñaaw di ko mastawu euh, foofu sama diwaan la xewee muy xombal waa ji nag ñi ngi ñaan rek li nga xamante ni mooy yoon daal ci def teg loxo ba mbir moomu lay daal di mujjee féete boor ndax xale bu ndaw nga daal di yàq avenir a dafa ñaaw loolu ñu daal di jàll ci deuxième cas bi rek fi mooy lees waxul loo wax baax na. <laughs> deuxième cas bi rek dañuy def ci dañuy dem fi nga xamante mooy prostitution yi ndax jamono ji ñu toll nii gis nañ que ni euh, dafa changé ni ñu ko daan doxalee bu njëkk sax euh, changé wul comme euh, carrément mais bu njëkk dañ daan gis que ni dañ daan taxaw ci trottoir yi ñu la fa daan fekk. Mhm. mais léegi dañoo gis ni am na ñoom seen façon bu gën a yomb bu ñu koy defee maanaam ci réseaux sociaux yi ba da ngay gis benn ñuy posté li nga xamante ni mooy seen photo yi. ko posté seen story yi dangay gis ñu ciy def seen ay prix di ci waxaale mu nekk mbir mu doy waa di gën a yombal li nga xamante ni mooy euh, phénomène boobu la xam nga euh, comment dirais internet mhm. internet dafa toll foo xam ne technologique dafa avancé yow tey jii da ngay toog fi bëgg reer dugg a dugg a google laaj ki fi toog a si koñ bi mu wax la ko mhm. nga dem commandé woote au livreur mu andil la ko mhm. léegi ba si ba si jigéen ñi mënatuñoo togg léegi ndax lépp ceeb da nga koy tàppee google mu génn la menu bi ni ñu koy toggee ña kilo ngay sóor wala génn waa libre wala ñaari kilo wala ñetti kilo mm-hmm. jamono moo avancé léegi tey jii taxaw si mbedd yi dafa ñaaw mm-hmm. ndax boo taxawee si mbedd yi man mën naa la faa romb mm-hmm. nga xam ma keneen man na la faa romb ba xam ne sama kër laay toog yor sama téléphone def samay prix def samay boo ma soxlaa nga woo ba ñu waxaale bu la neexee ñu def appel vidéo laay vantaa rek sama kanam du feeñ masque sol nga ma ma di la di la ñuy waxtaan ma lay ma di la bégal ba nga pere nga jóg sangu ji mhm. nga fay ma dugal dugalal ma li ma ngi dugal sama sama compte ma encaissé ko mhm. am na ñoo xam ne noonu la ñuy jaayoo am na ñoo xam ne dañuy taxaw si territoire yi am na ñoo xam ne si groupe whatsapp yi mhm. est-ce que xam nga ne groupe whatsapp yi ñun ñaa ngi siy liggéey léeg-léeg ñu ajouté la si benn groupe ñoo xam ne góor gi dafa am solo ku góor kii téye na dara jigéen ñi lay jël suuf ah sama jarbaat man de <laughs> damaa jiw maa ngi jéggalu. stratégie yu ñuy voilà wala nga jékki-jékki am ku la envoyé benn vidéo na la eh man ma damaa maa ngi damaa juum. Mhm. numéro dama kaa fekk sama téléphone numéro lu muy jékki-jékki dugg sa téléphone. Mhm. est loolu mën na nekk numéro jàmbur jékki-jékki rek si jigéen. Mhm. ñëw dugg sa téléphone def appel wala mu yónnee la vidéo. c'est c'est impossible. léegi genre business yooyu la nit ñi jël léegi nag euh, cagatu gi muy gën a doxee ci internet bi. dama lay soxla duggal léegi Facebook. génn cinquante numéro ñoo xam ne tey ji am na ñoo xam ne annonce la tudd moom lañ naan annonce dañu jël seen numéro dugg gis la boo ñëwee ñu woo la waxaale ak yow nga dem ma dem mhm. na ñoo xam ne boo ñëw sax dañuy taxaw naa lan li nga sol boo solee casquette ñu la simil sa casquette ñu ngi lay séen de loin te yow doo leen gis mhm. man mën naa nekk sama immeuble ngay mën naa naan ma di la indiqué ba nga ñëw ma la simil casquette bi nga sol mhm. téenal nga téen doxal tuuti nga dox tuuti non kii xaw ma ko na yéeg boo ko xamee ñoo la sëñ bi ñoo ngi jéggalu wala maa ngi ñëw jël si la bàyyi la nga fa àdduna boo toll foofu. dafa dox de pour euh, boo xamante ni Sénégal 7 publié na ko waa ji nga xamante ni suñu benn ndaataangoom moo ko def euh, ndaw si Andiaye la tudd moom nag euh, waxul ni carrément ci maanaam page Facebook am que ni dafay cagatu ñu baal ma ci kàddu bi moom rek lu muy def mooy dafa daal di def photo profil boo xamante ni. dafay bu attirante bu presque nu. saay saay lañ. d'accord léegi nag ci story bi nga xamante dafay publier ay photo yoo xamante la. lam cay wax rek mooy que ni day def ay appel vidéo appel vidéo bi ci nekk nag dafa am prix nekk mbir moo xamante bi ci gën a yomb ñaar la bi ci gën a yomb trente mille francs jar na ko de après jox ma numéro yeggali ok ay naaj yow lay déglu. ah appel vidéo jar na ko. appel vidéo trente mille francs. jar na ko de. vidéo boo xamante ni doo leen gisante. ba jar na ko léegi moom da ngaa xam nu mu mel. Mm, doo leen gisante euh, euh, jarut ngay déplacé wu pour ñëw ci moom ngeen sekk. jaru euh, ko moom nag la muy xamle rek mooy da ngay toog fi nga toog moo la appel vidéo dina la wax loo xamante ni ñu baal ma ci cadre bi di nga daanu dara. appel vidéo mën nañ cee daanu. a ah, moom eh, gis nañ ko si moom la moom la article bi bind daal mu ni lëmbe mun a yàqu lu bari nag ci société bi ñu war cee mën a jóg. nag ah yow si nga toll société bi mu yàqoo kat yàgg na fu ñu dem ba xale 18 ans yi léegi ñoo tee réew mi fi mu toll nii de. ñi judd 2000 xale yooyu ñoo tee réew mi fi mu toll nii <laughs> ah doo génn guddi. Mm-hmm. xale 17 ans 18 ans 19 ans ñoo yor appartement yi ci rew mi fii. réew bi fii Sénégal 17 ans ba 18 ans ba 16 ans ñoo fi am ay appartement 85 86 xale yi pousse nañ leen fi yóbbu leen retraite léegi ñeneen xale yu bees yu fas yéen ñoo ñëw. man dama foog ne benn jour mas naa ko wax xale bu jigéen léegi même sëy yi léegi dafa metti da ngay gis kuy sëy jënd laaj wala tëddax jëkkëram jënd laaj jënd poobar jënd kaani jënd timaji fas kenn kaa sotti si kanamu jëkkër ma leen yooyu yéen seen kanami jabar ak seen i kanami jëkkër du waañ ndax nooy seqee sa jëkkër wala ngay seqee kool yi ay tàngal cristal ay feuille menthe paste lu de nga bëgg koo def si kanamu ko jigéen ki mel ni ku yor waañ doo gis feebar yi dañ jege yooyu ñoo la kanamu ko jigéen ki neewi na tol na nii tol na ne tol na ne lan moo tax léegi ñun système bi ñuy sëyee dañ ko saa changé léegi monde bi moo toll foo xam ne dafa tourné boule bi moo changé moo tax léegi si internet bi la nit ñu di càkkatooy si internet dañuy saagantee ndey si internet dañuy defantee lu bon tey su ma la bëggoon a yàq sa photo laay jël dóor ko si internet ne kii seq na ak moom lii te yàlla xam na ne mosuñoo gisee. Hmm. xamoo ma xaw ma la mais bind ci article boo xam ne sa papa da koy liir tiit sa yaay liir ka daw ñu naan wuy sama doom ji te or ko ne amul. Hmm. ñun lépp lu bon ci internet lañ ko essayé senegal boo xoolee pencoo amatu toog waxtaan naan ataaya kay gëjoo ko gis. Hmm. toog si boppi kañ ñu naan ataaya xam nga gëj ñu koo gis. Mm-hmm. léegi lépp ci internet nit koo gis mu ngi concentré wu ci téléphone am di xool nu mu yàqee diw wala di xool nu nu muy créé noonu. Mm-hmm. da ngay gis ay xale bu jigéen man sama noon yi maa ngi leen te amul kenn kenn la ko sax mais xam nga la moo waral mm-hmm. internet moo toll foo xam ne dafa yàq réew mi te ji loolu ngay wax noonu Anjaay moom ngay mil mille Anjaay ñu ngi Google mille Anjaay ñu ngi Facebook mille à Ndiaye ñu ngi TikTok duggal TikTok léegi boo boo poussé pousse gisoo vidéo bu sexy ma may la cent mille. Mhm. TikTok boo fu duggee deux secondes pousse poussat gisoo vidéo bu sexy ma may la cent mille. d'accord léegi sexy bi dañ koy fooye. Euh, mbir ma loo xam dafa dem ba suñu société dañ ko mis waaye nag euh, phénomène bi pour man euh, lu ñu war a xeex mu dañ la fi parce que bu ñu demee ba nga xamante ni ñoom seen liggéey yombul woon parce que ñu ci ëpp bu ñu am amul woon carte dañ daan sonn loolu pour ñu daal di def seen liggéey bu jamono demee nag ba ñu koy def ci réseau sociaux yi benn xale bu toll fële mën na gis xale boo xamante ni innocente la du ci xam dara mu yaakaar ne ñoom li ñuy def moo baax pour nga yow ci sa jëmu nga ñu ñu xeex mbir mi le lan nga xalaat que ni moom la ñu war a def pour ñu même bu dañu sax mu wàññeeku. xam nga la moo tax ñu koy xeex ñi leen war a jàpp ñoo leen di defendre da ngay daje ko ki soi-disant càkk léegi ci mbedd bi nga nga menacé ko mu woo ku mu woo borom ndombal baat loo xam ne ci réew mu woo na la boo ko waxaatee dara nga dugg nga fanaan ci giru kañ lañ koy lijjanti. Mm-hmm. ñii ni war a ñoom ñoo leen di défendre. Mm-hmm. te léegi carte carte càkk moo gën a yomb am carte tey ma ko bëggoon léegi du fanaan dama koy am léegi ni ci guddi mm. du fanaan ñii Sénégal maanaam ceege ji dañoo am doole si si état bi mënuloo leen dara dara dara dara dara dañoo am doole si réew mi ah, si réew mi ci réew mi dañ fee am doole amul loo leen mënal tey ji boo si jàppoon kenn léegi ngeen ànd gendarmerie mu bala fa lii maa la ko wax tey la lazi boo fi jàppoon da le benn léegi benn jage war koo fay door ko war koo fay fayoo ko ngeen ànd gendarmerie mu tëj si kaso bi ñibbi si këram mm-hmm. ndax day yéegi génn kartam abul lu mu ciy ruus daf ma laal bañ maa fay ci kaso bi lañ la jëmee même bu la taqalee sosol la yow dañ lay tëj ndax am na mbokk mhm. duwaañ wala mu am mbokk gendarme wala mu am mbokk wala benn far boo xam ne muy lijjanti ay kaam mhm. dafa ñu de ñoom ñi ngay gis ñuy taxawaalu ñëpp dañoo am branloo nag ma wax la ko tey fii nga toog ci réew mi moo tax cakay boo leen gisee jàppaleen te def leen ay xarit rek <laughs> te yàlla rek tax nag la balaa la wax nag yàlla na leen yàlla soppi seen jikko wante su mënuñoo soppee ndax liggéey bi ñuy def te liggéey bu am solo la ndax bu woon ak ñoom réew mi du dox solo de. yow doo bàyyi liggéey naxuma du caaxaan ndax ñoom ñu ngi si ñu ngi si en fait càgg ji dañuy liggéey xam nga dañuy liggéey ñoom mën nañoo xëy lijjanti deux cent mille wala trois cent mille wala quatre cent mille yow del mbindaan weer ngay xaar. mais ci nga amee ko ci bu leew aussi. càgg càgg immeuble fi am càgg yu tabax premier étage deuxième étage ba troisième étage am ca yuy jënd oto fii ci réew mi di dawal ay xaama yi Range Rover. xarit li nga wax bu la xale ay ñoo lay seetaan. ay ay jigéen ñoo lay seetaan. ñoom ñoo gën a xam li mën na leen daal di influence ñoom ñoo liggéey la boo xamante ni rek. Euh, pourtant pour man liggéey la comme liggéey yëpp nag kii xëy suba gàddu saagam dem biroom bu wàccee ngoon. dugal almadi léegi si guddi kat kat yu ñuulal dafay romb de. léegi yow ma sœur kaay ci hmm. ana yàlla. ah ana yàlla yàlla mu ngi fépp. yàlla lan la wax ci nit kuy jaay boppam yàlla lan la wax ci nit kuy kuy jaay boppam yàlla waxu ci dara aaya boobu génnagul aaya boobu wàccagul aaya yi wàcc mooy aaya wàcc mooy nit na def li mu war a def nit ku si ne li nga war a def rek yow def ko saa yoo xëyee hmm. tous les moyens sont bons pour gagner sa vie nit ku si ne defal lépp ba tekki tekki rek am solo tey jii da gis benn ceeg roba ñu koy tàcc eh, aka baax doomi diw aka baax xamoo la muy liggéey yow yaa ngi fiy gis nit chaque jour nga nuyu ko xamul li muy liggéey bon caga ji dañoo am solo ci réew mi ndax léegi-léeg am na ñoo xam ne mënuñoo doxaan ci caga ji la ñu dem fay vingt cinq mille wala quinze mille barkee lu ñu buwaat seen i kër bu leen nii nooy samay xarit lañ dama leen a bëgg nag voilà bu leen wax lu ñaaw mi ngi noonu seen bokk seen xarit dégg ngeen lu mu wax ba tax na rek li leen leen indiloon ci seen les waxu la ah, dañ koy bàyyi rek mu tàggatoo ba beneen yoon incha waa cantax ngërëm nag dalay daal di ñeel bu baax a baax soxna jaaratulaay sangub jigéen ñi ci réew mi yal na sàmm <laughs> yàlla def la magum mag mu am ñam yàlla def la magum diine magul lislaam mm. ba nga bàyyi caga ji tooñ ndax sunu borom dogal na àdduna moom daanaka dara yàggul di nuyu nag waa géejawaay parcelle ba barñi di cantax ngërëm nag day ñaan day ñeel sama sponsor leader ki xam ne lu ma sol daanaka moom a koy solal su ma jógee ci baaba baaba baaba Sarr sama tailleur international maa ngi koy bëggee nee na ma Saw Dieng man foo nekk maa baaba Sarr kontaan naa ci yow bu baax a baax Baye Cheikh Pro mon de valeur borom Ouest Foire a fekk Ouest Foire maa ngi lay kontaanee di la ziar Baye Cheikh Pro mon ami de valeur sant ak ngërëm ñeel la moo rasul maa ngi bëggee waa Ouest Foire ñëpp sama waa koñ maa ngi leen di bëggee. Alpha Condé ñoom Bamba ñëpp ñëpp maa ngi leen Rose mi jaay mu rox ton ndambe bu sa moom it cantax ngërëm ñeel na ko sama xarit la Rose maa ngi koy ziar bu a di Dafe maa ngi lay kontaane Dafe sama international bi yal na la yàlla defal jàmm sàmm la aar la yiir la Sidi Dafe kontaan naa ci yow bu baax a baax. Eh, maam Thierno borom seen cargo ex bi si rajo. damay damay nuyu maam Thierno borom seen cargo mi xam ne borom Istanbul ne a fekk Istanbul kooku bagage bu waaye am dala koy indil ba sa biir néeg tegal la ko te dërëm du si ci manqué maam Thierno borom seen cargo cantax ngërëm ñeel na la baab nee na ma saw ñee loo bokk maa nga ci maam Thierno ñëwal jàpp si événement bi yow rek képp dong jërëjëf maam Thierno borom seen cargo ba temps yi jërëjëf euh, Sow Dieng euh, leen indiloon ci seen émission les waxu di leen jox rendez-vous beneen yoon incha allah. nena lees oyi nena lees bisa biigi kumba faalo ndigal faal jambaari lislaam jambaari xelkom nee na leesooy nee lees waxul jaarama digal bàyyi góor jarama yooy njabaar mi fal jambaaroo góor di mel